leen ñëw bi fii ndax yéen da ngeen a bokk ci témoin yi nga xam ni daanaka mën nañoo jàpp ni moo waral fii ñu nekk tey ak xew-xew bi ak fi ñu jëm pour ubbi jumaa ji ndax li ma ko doon wax rek c'est tout un symbolisme boo xam ne bii moo nekk derrière l'édification de cet ouvrage. mooy photo bi ñuy def ci exposition yi soxna si xale xale boobu bu xees boobu mu yoroon mooy mooy Thibaut kon yéen da ngeen a dugg ci histoire sëriñ bi ndaxte taarix nettali na ko woy nañ ko wala fal nañ ko ni soxna Anna fay yàlla na ko yàlla fay alors ba nga xam ne bii donc yéen lii ñuy def ci événement mooy ñëw bu sëriñ bi ñëwul woon fii. ba ñu boole ko ak Ibra Binta Gueye ni ñu soxna Anna fay toggal ko fa ab laax kon yéen doole mais yéen vous faites partie intégrale de l'histoire du marabout ci séjour am fii ci Dakar bu li xewee nag te lii li tax mu xew kat fii ñu ko dugaloon Kandial Diop ba léegi cellule baa nga fa cellule bu ndaw la presque un mètre la sur un mètre cinquante sur deux mètres ñu tëj ko fa tey jii ñu defal ko fi jumaa ju toll nii nga xam ne waxuma moo gën a rafet ci Afrique moo ci gën a rafet moo ci gën a dàq ci réew mi ba pare gën cee yaatu ndax 60 000 mètres carrés la 60 000 mètres carrés wax dëgg yàlla wuute na ak 4 mètres carrés bu ko yàlla fayee loolu nag yéen ngeen ay sitam ñëw fii bëgg bokk ci événement bi boo boole wuñ leen ci événement bi da ngeen cee bokk